mbokk yi xool nga yàlla subhanahu wa taala lépp lu mu wax képp kuy jullit ñu ne yàlla nee na nga ne waaw mais boo yeboo nga dem beesalaat sa ngëm yàlla cest à yàlla bu waxee nangam Seyduna Muhammad wax nangam nga ne waaw d'accord mais boo yeboo nga dem tas tajdiidul imaan maanaam nga dem bay salaa sa lu tax parce que da nga weddi yàlla mi nga xam ne moo la bind da nga weddi Seyduna Muhammad mi nga xam ne moom la yàlla joxoon message bi pour mu wax la ko te xoola dama ne ak ngóor jigéen <coughs> alquran mooy wax ne wa luutan id qaala li qawmihi atatuuna fahishata mu ne waaw yéen yéen ti yonenti yàlla luut waaw dangeen ngeen war a bàyyi xel ci ndax dangeen ngeen di ñëw di def ak caacaay al faisha faisha moom lépp loo xeetu mbon faisha la tudd maanaam ak mbon goo xam ni mu ne maa sabaqukum biha min ahadin min al alamin maanaam ak homosexualité te mooy góor ànd ak góor ni moom pour am bànneex mu ne benn benn a maanaam benn àddina amul benn xeet bu ko mës a def yéen yéen a ko jëkk a def mu ne loolu lan la mu ne a innakum la taatuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum mu musrifun ndax da ngeen di fekk góor ndax da ngeen di fekk jigéen mi leen yàlla waxoon ne pour ngeen ànd ak moom ngeen bàyyi ko nele fekk góor buy sol mbaxana ni yow ne da ngay ànd ak moom pour am bànneex ci moom loolu ak caay la loolu ñàkk jikko la loolu ak mbon la loolu ak alkande la yàlla na ñu ci yàlla musal mais xam nga bi yàlla waxee loolu xam nga luut bi bi mu waxee loolu ba noppi xam nga lu ko toon ñu ñàkk jom lañ noonu te loolu nag bu ngi am ba léegi xoolal wa ma kaana jawaaba qawmihi ila an qaalu axrijuhum min qaryatikum innahum unnaasun yatataharuun xoolal ba wax borom ne ah xool leen xool ngeen luut mii bu ngeenee boo ngeen génne ko ci seen dëkk bi na ngeen ko génne seen dëkk bi ndax ay nit la ñoo xam ne dañu ñëw di jéem a sel sell sellulu xam nga ba léegi dina am da taxawal nit ñi di waaraate ñu ne waa moom dafa foog ne moom moo gën a sell nit ñi fekk na yow dangay ñëw di nettali waxu yàlla ak bi eh, xool nga Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa dangay da toog ba mu yàgg ngay laajt ci ndax al nahnu muslimun sommes-nous musulmans est-ce que ñun ay jullit lañ danaa ci ñëw xool nga yàlla bi mu waxee loolu ne innahum unaasun yatataharuun comme yàlla am na lu mu naat ci ñoom fa anjaynaahu moom luut wa ahlahu ak ñi gëm ni mel ni moom illam raatu ba mu des soxnaam sa nag kaanan min alxaabirin wa amtarna alayhim mataran fandur kayfa kaana aqibatu almujrimun ca suratul araf yàlla ne noo yonente yàlla luut génnal yow moom danaa fexe ba nga sowee yaag ñi la gëm waaye sa soxna si nag du ci bokk xam nga lu tax soxna si moo doon wax gaa yi moo doon wax waa dëkk bi am na ay xale yu góor yu new ci dëkk bi c'est-à-dire xale yu góor yu rafet yi ñëw ci dëkk bi soxna si mooy informé góor jigéen ña fa ne pour ñu ñëw mu ànd ak tëdd ak xale yooyu moo tax mbugal ma ba muy ñëw yàlla épargné wu ko de xool nga loolu lu muy tekki na la yàlla na la yonentu jur na la wali yu jur na la ku jur xool nga bu fekkee ne defoo lu baax bu yàllay duma ah du la wax ne di wala jur wala di jur mukk wala diw mooy sa borom kër yàlla du xool foofu dalay dóor comme ñi muy dóoree ñi def lu bon ñëpp kon loolu sosorodul aaraf xoolal beneen aaya bi wax ni a innakum la taatuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qawmun tajhaluun xoolal fale dafa la wax ni qawmun mujrimoon dafa wax ne ay kàccoor ngeen bii mu wax ne nag xaw muñ yéen daal ñu réer ngeen ndax réer mooy tax nit di def lu bon te dama wax ni ñoom ñoo ñu wax ne dañuy njéem a daganal ngóor jigéen xoolal ñoom bu fekkoon ne seen waajur ya noonu lañ defoon ñoom duñu judd xoolal yàlla dafa xereñ ba nga xam ni même tubaab xool nga même courant bi ñuy utiliser nii xoolal fexeel ba jël plus ak plus noo fexe ba am courant jëlal plus jëlal moyen boole ko moyen ci courant doo am courant mukk fokk nga jël plus boole ko ak moyen pour nga mën a am courant xoolal plus mooy góor moyen mooy jigéen pour nga mën a am ay doom fokk góor ak jigéen ànd bu góor ak jigéen àndul sëy mënu la am foofu te xoolal même jigéen li ko yàlla daganal ci yow xoolal boo àndoon ak moom fi nga xam ne moom la la lislaam wax pour nga ànd fa ak moom danañ la def punition bu ëpp bi nga xam ne moom nga moom moom lañ la waroon a def donte sa jabar la sa soxna ak lum doon doon sa soxna dagan ci yow sañu loo sëy ak moom fu dul fi yàlla wax ne sëyal ak moom sañoo ko naka noon nag boo wëlbati ko nag dem góor ni yow fala fala ak man fala yem eh, xool nga homosexualité nag li ci alxuraan wax yëpp aaya yi bëri na waaye ñaari yooyu rek moom lañuy ñuy doyloo léegi nañu wax leen eh, maanaam danger yi lor yi nga xam ni moom moo am ci homosexualité bi ci jiitu ci lor yi nga xam ne mën na koo indi mooy adrar addiniya ci wàllu diine ak lor bu métti lay def lu tax mooy parce que minal kabairi zunubi ci bàkkaar yi gën a màgg lu tax mu ne li annahu yasudu an kathiri min ataati an min ataat c'est-à-dire ak ngóor jigéen ku koy def jaamu yàlla moom pare nga ci doo ko def moo tax ibnul qayim al jawzi dafa doon lim bàkkaar yi de lim mooy yàlla yi bi mu paree ci mooy yàlla yeeg bàkkaar yi dafa wax ne bàkkaar yi ma tudd ak mooy yàlla yi ma tudd bu taw tawxiid ñëwee mooy nga gëm yàlla dëgg bu ñëwee rek bàkkaar yooyu ak mooy yooyu ngëm gi mooy koy effacé bu mu jeex mu ne waaye nag li ñu tuddee eh, alluwat te mooy homosexualité mooy ak ngóor jigéen mu ne moom najaasa la boo xam ne moom ak zina njaaloo ak góor jigéen ne na ñaar yooyu mu ñoo gën a garaaw bàkkaar yoo mën a tudd mënoo fexe ba mu deñ ñu ne lu tax mu ne li annaha naka moom li nga xam ne mooy ak ngóor jigéen dafay tufsidul xalba dafa yàqu xol wa tudiful at tawxid te dafay lottal ngëm yàlla bi nekkoon ci nit mu ne nag wa moom ngëm googu de bés bu nekkatul ci nit rek yàgg bàyyi ma yéen a yem kon boobu mooy lor bu mu jëf ci njëkk ci wàllu diine ñaare ba al adar al xuluqiya ci wàllu jikko dafay yàq jikko moo tax alluwaat huwa al faishatu allati tudamiru al axlaq maanaam ak ñu góor jigéen fu mu fekk jikko ju rafet mu yàqu ko te jikko ju rafet fu mu yàqu réew mu mën a doon réew moomu dootul baax ndax ahmed sawqi mo waxoon ne innama al umamul axlaaqu ma baqiyat fa inhum dahabat axlaaquhum dahabu ñetteel bi mooy al adrar ijtimaiya danger la lor la ci biir penc mi eh, moo tax Moustapha alxamaami dafa wax ni eh, inna arrajula allazi yactaaju hadihi alxabisa yansa zawjatahu maanaam góor bi nga xam ne dafa ñëw di def caay gi mooy ak ngóor jigéen nee na bu fekkoon mu am soxna dafay fàtte soxnaam c'est-à-dire pour wax ne ni muy commencé yàq soxna de lu tax mooy boo am nit ki boo amee soxna banneex bi mu waroon a ànd ak soxnaam banneex boobu mu ne dootu ko am ak moom dem di ànd ak góor bu yàggee dafay fàtte soxnaam bu fàtte soxnaam kër gi commencé tas coow li bëri kon loolu bokk na ci adraar yi nga xam ni daf koy def beneen bi ci des mooy euh, al adrar al amrad sirriya maanaam ay feebar yu doy waar yi nga xam ne ak ngoor jigéen da koy indi ci penc mi xool nga li ñuy tuddee sida sida mu ngi commencé soso ci góor ak góor di ànd ca la feebaru sida di am xool nga yonent bi lépp lu mu la wax xam nga dafa wax ne bu ñu demee ba caacaay gi bëri bañ di ko fësal xoolal yàlla nee na yonent bi nee na danaa leen teg feebar bu ngeen dul mën a faj sida boo fi ñuy toog ak wax ak yow ba léegi gars yi mënuñ ko fat sallallahu alayhi wa sallam mukk beneen bi ci des mooy adrad al iqtisadiya maanaam lor gi mu war a mën a def ci économie lu tax mu mën a def lor ci wàllu économie ñu ne ndax inna kathiran min al liwatin yafqaduna amalahum xaysu yutraduna minha li admi salahiyatihim laha wa yusbiuuna aaliyatan ala mujtamaatihim maanaam ngóor jigéen ñi ñaareel fépp lu ñu fu ñuy liggéey fu ñuy dem di fa liggéey ñaareel dañ la di dàq lu tax parce que dañuy dem ba dootuñ mën a xajag ñoom ci bërëb bi xanaa ki ko nekk ba pare di ko nëbbu waaye ak ngóor jigéen ci pénc ci société xoolal bu ñu buñ demee bu nga fësal ko dootoo fa xej boo fa xëjee dañ lay daq buñ la daqee nga mujj nekk ab taxawaalukat beneen bi ci des mooy xool nga boo demee États-Unis dañu wax ni ñi nga xam ne ñooy waaw dañu wax ni ñi nga xam ne dañu am feebar te feebar bi mu ngi jógee ci li ñu tuddee ci ak ngoor jigéen ci homosexualité nee nañ danañ dépense maanaam danañ dépense dépenser pour faj leen dépensé pour protéger leen ci seen wér gu yaram ñaata mu ne na million dollars sanawiyan dinañ dépensé par at juróom fukki million ci dollar par at pour rek faj leen ci seen feebar yooyu loolu mënu la résoudre beneen bi ci des mooy loolu noonu yëpp nag Seyduna Muhammad wax ni képp ku ngeen gis. muy def yëfi góor jigéen rey leen moom mi koy def ak kim koy def ibnu abbas na nettil xadis bi man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi luut faqtilul faa'il wa maf'ulul bihi mu ne fu ngeen gisee kuy def loolu ka koy def ak kiñ koy def mu ne ñoom ñaan ñépp nang leen rey loolu moom amul xilaaf bayna al ulama beneen bi ci des yoneen di wax na ci xadis mu ne laana allahu man amila amala qawma luutin thalaatha marat yàlla rëbb na képp kuy def yëfi góor jigéen moo tax lii am ci werante nan lañ koy def mooy ñiy wax ne dañ koy dañ koy yéegal ci bëti montagne puus ko mu daanu ñu jóor ko ay xeer am ñu wax ne dañ koy lakk mais raayu bi nga xam ne moo am ci ci aboubacar ak xulafaul arba aboubacar bi biñ ko ko waxee dafa wax ne nañ leen lakk xam nga li tax ñu war leen a lakk parce que dañuy yàq penc mi bu ko defee ma tëjee li nga xam ne moom lañu fi defoon bu yàggul mooy sitting bi amoon ci place de la nation yalaate na ànd sama jikko yi def nañ tournée ci képp koo xalif général ci dëkk bi pétition bi nga signé ko xam naa incha allah eh, ajuma bi ñëw danaa fexe ba indi pétition bi ñëpp ki ci defe naa ne képp bu jullit buñ ko jox da nga ko signé te mooy fexe ba ñu am ci ay signataires yu bëri yoo xam ne mën nañ ko yóbbu assemblée nationale ndax ndax ak ngóor jigéen xam nga bu fekkoon ne dañ koy def ba pare di ko làq du garaaw mais boo demee boo wax ni nañ la may autorisation nga di ko manifester ouvertement loolu kenn mënu ko nangu eh, bi may kii nag am xam nga ñun président li mu fi waxoon d'accord nañ ci la mu wax waaye dafa am fermet bu mu ko waroon a waxee xool nga Robert Mugabe moom bañ mu ñu wax affaire góor jigéen ci kër gi dafa leen wax ne te ko biir Nations Unies la ko waxee lépp loo xam ne sunu religion nanguwu ko sunu culture nanguwu ko bu fekkee ne seen alal yi kese la jël leen seen alal te ngeen bàyyi ñu ak sunu bopp. maintenant am na yoo xam ne yow yaay am fullay ne leen li nga xam ne mooy sama réew nanguwuñu ko kon bu leen ma waxati lu aju ci wàllu góor jigéen point waaye boo waxee ni xam nga président léeg-léeg mooy dugal boppam gars yi di ko critiquer parce que boo waxee ni Sénégal dañu mën a analyser boo waxee ne Sénégalais pare guñu loo ciy dégg kon mën na am bu yàgg ñu pare mais boo waxee ne sama réew du pare te du mos a pare pour affaire góor jigéen bu ma ko kenn laajati bu fekkee ne seen xaalis ngeen yor téye leen ko mu jeex kon bu ko defee eh, loolu lañ bëgg ñëpp jàpp ci waxuma dara nag ay góor jigéen ñu ñu ñàkk fayda ñu dëkk France di jéem a menacer xam nga ñoom ku yebbu yërëm leen dama ne France bu duwuloon Sénégal mu torox Afrique ba ñu jaaxle ba Hitler nangu nangu nangu seen dëkk ba ba ñu jaaxle boo xam ne ay ñaan kese moo ci mën dara fii la ñëw sàkku si ñaan man Seydi Hadji Malick ca la yebaloon maam Abdul Hamid kan mu ànd ak ñoom Seex Sukayrij xoolal loolu photo yi ñu ngi ko yore photo yi ba ñu doon def ñaan yi ma bi ñu demee France fépp fu ñu yaakaar yóbbu nañ leen fa pour ñu def fa ñaan kon français yi dañ ñàkk jom rek bu ko defee nag ñoom ñu ñëw wëlbatiku ne ñi nga xam ne ñooy signe pétition boobu ku ci dañ nañ leen interdire territoire francais ñoo xam ne du ñu dara ba pare di cité nag ay sunu xalif général de Tidiane te xoolal képp kuy xalifa laa wax signe nga ko di cité ñoom Dame mboojaak ak ñoom Ahmed Dame Ndiaye ñii dañoo ñàkk jom te dañ yem nit ñi nag xoolal dama ne am mag ñi am nañu dund boo génne àddina te demuñ France lan mooy France jullit lenn nga koy xañ mu feebar mooy dem Makka kese waaye lu dul loolu nañ dem seen réew xool nga dama ne képp ku tere Serigne Mansour xalif général de Tidiane wala beneen imam pour mu dem tukki xoolal dinañu fexe ba keneen dootu dugg fii jóge France parce que am na yoo xam ne nag mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam kon yal na ñu yàlla defal tawfiq yal na ñu yàlla samal suñu réew yal na ñu yàlla aaral suñu réew képp ku ko nar a yàq. yal na la yàlla nasaxal bu ko defee ñu ngi jéggulu bu baax borom xam-xam yi te seen naa fi samay sëriñ ñoom sëriñ Moustapha Sambak ñoom oustaz Omar Ndiaye ak yeneen borom xam-xam yi ñoom ñëpp ñoo Amir Diakhaté ak ñoo Ibrahim Ndiaye ñi nga xam ne ñoo sunuy oustaz ak imaam Adama fay ak ñoom imam Bousso ñu ngi leen di ziara di leen baalu àq bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal tawfiq yàlla yàlla sàmm réew mi sàmm ñu dëkk réew mi lépp lu mën a yàq yàlla ñu ci yàlla musal temps bi moo ñu ko mayul sinon danañ doon indi ay détails pour won la ne am na loo xam ne dem nañ ba code de la presse bii ci senegal ñu dugal ci loo xam ni journalistes yi dootoo ñem a wax ci àllo affaire góor jigéen loolu ñu ngi ci ay pexeem moo tax am na yoo xam ne moom da ngay am fulla rek bu yeboon ñu tëj sa tele nga nangu ñu wax fa xam nga waxoon naa ko fi nan ngay nangu ñuy def ay ay débat yu ñàkk njëriñ ci diine ji te nanguloo ñu wax ci wàllu góor jigéen ah kon yow danañ war nañu laa laaj de lu tax loolu kon bu ko defee rek ñu jàng fatiha ak salaatu ala nabi def ko addu seyduna muhammad ñaan yàlla subhanahu wa taala lii ñu fi wax ci lu ñu naqari yëpp yàlla ñu ko yàlla faj